Diamniadio euh, dañuy dégg ni que euh, alors ça pourrait abriter li nga xamante ne moom mooy ay match euh, nawetaan <laughs> yaa ngi yaa ngi reetaan te question bi pareegul léegi en fait lu ma bëggoon a laaj rek mooy loolu na xalaatoo leen ni que mën na indi après yenn incident ba mu ba mu am ay yàqu-yàqu foofu. xam nga nag man man yaa ma yëgal loolu ay match nawetaan ay match leneen li am importance mooy Sénégal am na équipe bu am na stade bu baax. lépp lu fa war a nekk rek day nekk loo xamante ne càmbar nañ ko ba du fa yàq dara du ma fi nekk nag di caricaturer benn discipline wala benn nawetaan ak yooyu mais tey match bu ñu fa war a def rek déggoon ngeen nga ne ñu ne Pikine nag kii dafa waroon joué ci Géejawaay c'est parce que c'est parce que dañ jëloon disposition yoo xam ne bu ñu du yàq dara loolu moo am solo boo amee jumtukaay disposition yi ngay jël ba dara du fa yàqu lu dul la nga fa def mucc ayib looloo am solo mais jàpp leen ne du ay infrastructure yu ñuy fooye infrastructure yu am solo la yu laaj taxawaay lu laaj soppi doxalin ci ni ñuy yore infrastructure sportive. Mm-hmm. Euh, léegi aussi par rapport ak euh, match euh, aller bu nga xamante ne suñu génne yi dañ ko war a daje. Mm-hmm. ak égyptiens yi foofu ci Caire. Mm-hmm. ñëpp xam ni que égyptiens yi ñoom dañoo ay ci mobilisation ba seen stade bi sax ils ont la réputation à ce qu'on la à ce qu'on l'appelle le stade de la terreur alors ñu gis ni que il n'y a pas un important dispositif par rapport ak supporters yuy dem foofu yu sénégalais jóge Sénégal dem foofu Caire xam nga y' a de sénégalais qui sont au Caire aussi il faut noter ça c' est pas la première fois dama leen di fàttali ne en 2015 yóbbu naa équipe nationale bi Caire ñu gagné leen 1-0 y' avait plus de 60 000 égyptiens ci stade bi te terewul ñu gagné leen l' affaire ne est pas parce que y' a beaucoup de monde. c' est de fer gis nga li xale yi yor ci coupe d' bi bu ñu ko yoree jour match boobu dañu gagné loolu am solo li ci des nag mooy euh, xam nga booy leble ku la gane si te par force nga gane ko da koy lebal loo xam bu la ko fayee mu normal rek yëf yi moom lu ñu bari bari suñ ñëwee dinañ fi fekk lu ëpp loolu fii yi nga xamante ne mooy Sénégal ci match retour mais lépp sport la xam ngeen nag ne Égypte ak Sénégal ay xarit lanu yàggul sax bi fa président Macky Sall jógee kon li gën mooy ñu def ko ci football def ko ci sport eh, yàlla may ñu ndam comme ni ko mbër yi waxee yàlla ndam li ànd ak ñun su ko defee bu ñu ñibbisee ñu mën a feetoog ñoom fi mm-hmm. Euh, léegi euh, sama dernière question rek euh, mooy ñëpp xam nañ ni que remise de drapeau bi nga xamante ne bi xam nga mooy am ci làmb ji te nit bëgg nañ ko seetaan publique bi sa drapeau la te ci sénégalais bëgg nañ ko seetaan est-ce que mën nañ xaar làmb ji tey président Macky Sall may ko sénégalais yi ci télévision yi mën ko seetaan. xam nga nag man képp ku ma sopp damay da ngay lijjanti billet jënd parce que loolooy def laal làmb ji loolooy tax mu dox. ñi ñëwul quoi laay wax waaw waaw mais ku ñëwul yàlla na perpétue bi bu mu am benn niage na leer nañ rek gars yi jënd seetaan parce que loolu aussi sa waay soo ko soppee ñu jagle la ko dara soo mënul dara it xam nga ñoppati ci sot la bopp jënd bi it ci sot la bokk. ci sot la bokk moi capitaine Essip dégg li mu wax capitaine Essip bi. lan parce que moo ex capitaine bi parce que moom jàpp na ne maanaam ay Mbappé wala ñu mel ni kii noonu. waaw buñ leen amoon xam nga nag bàyyi ñu tagg la moo gën tagg sa bopp moom li muy def day tagg boppam. capitalisme bi. ah li muy def day tàgg boppam ñun tàgg sa bopp amul njëriñ parce que li muy wax noonu ñàkk xam football dal na ko defe naa ne bu ñu nee ex capitaine bañ ko koy teg jàpp naa ne am na lu manqué woon ci moom. football c'est un sport collectif du ay individualité même bu amee benn mais xam nga ñun mun na nañoo tudd ñu ne am na ñu Sadio am na ñu keneen ak keneen ci équipe bi ñoo xamante ne ñooy dugal bii te nekkuñu di wax loolu ñun lu am solo mooy dem gañ leen ñibbisi. solo. yaakaar naa ne nag fii ñu ngeen jàkkaar lool xam ngeen leen muy mu mu Moussa Matar Ba ministre des sports ak kan suñu papa Gaston Mbengue mi nga xam ne nii moom moo tëgg làmb la 27 tuddee ko drapeau ak makan mi nga xam ne tey moom moo nekk si bopp Gaston production léegi nag li ñuy def maanaam li ñu fi indi mooy remise de drapeau drapeau dimanche bi muy combat boo xam ne xam naa ne dina metti mbuur la ak Pékin combat revanche euh, balaa ñuy sori rek Papa Gaston mi nga xam ne moom moo jël drapeau delloo ko monsieur le ministre la ñu bëggoon xam choix bi lan moo tax nga choisir Matar Ba pour delloo ko njukkal ci drapeau bi. waaw jërëjëf Babacar jëf yéen waa presse bi yëpp loolu moom euh, suma Sénégal ñoo moo ciy tontu boppam parce que nag Matar Ba d'abord au delà de suma rakk la mais aussi dafa nekk euh, ministre làmb ji ministre tutel mooy ministre de sport nekk njiglaay ci sport bi. mu nekk fi depuis 2014 gis ngeen li mu fi def réalisation yi nga xam ni li ñuy wax tombee waral ay gaaf ci moom la tombeel suñuy lim duñ fi jóge ay arène nationale ay arène stade du Sénégal ab Ablaye Wade coupe d'Afrique mosuñu ko am yooyu yëpp tombee ci moom làmb ji gis nga en plein Covid mu jàpp ci ba nga nit ñaa ngi bëre daanaka làmb ji moom yëgul même su yëgee Covid bi yàqu ko Covid bi Covid bi yàqu ko parce que nit ñaa ngi bëri mbër yi demoon nañ ba découragé ñoom ñëpp CNG ba Alioune Sarr ñu koy gën a gërëm di ko di ko delloo ñukkal parce que Alioune def na lu ne ci làmb ji bi mu fi jógee Matar jël dénk ko Bira Sène mu nekk fi ba pare nag di leen accompagner ni muy accompagner football bi di ko accompagner toutes les disciplines donc euh, ñun li ñu ko mën a njukkale rek Sénégal gépp teg seen ba yëg ko ci euh, dooree ko ci président Macky Sall ba ci le plus petit sénégalais ñëpp euh, sentir ni lii ñu def defuñu ko pour dara dañ ko def pour delloo ko njukkal parce que lu mu mérité la man keroog dégg nga ma ci télé bi may wax ni euh, président Macky Sall li mu ko mën a gën a yokkee sax mooy doubler poste militaire parce que ministère des sports mosul nekk ministère des sports kese de. dañu daan boole leneen culture wala jeunesse wala communique leneen dañ ko ci daan boole wala tourisme wala yooyu. ci mhm. président nag président Macky Sall nag li ñuy wax ku def lu rëy am lu rëy. Mhm. Matar Ba mérite plus que sax donc ñun comme amuñu pouvoir yooyu mais pouvoir bi ñu am mooy tëgg làmb. Mhm. delloo ko njukkal tuddee ko ko. pour réew mi xam ni. Eh, réew mi koy waxandoo merci du production rek ko mi moo ko tuddee làmb ji moo ko mu nekk xaritu mbër yi. tey lu xew ci Sénégal Matar Ba bokk ci da ngay gis champion làmb yëpp ay dem ñoom ñëpp doo xamee sax kan moo ciy mbërëm d'ailleurs amu ci mbër ñoom ñëpp ay xaritam lañu promoteur yëpp ay xaritam lañu yéen ñii fii yëpp ay xaritam ngeen et puis mu disponible bokk ci donc ñun dañ koy remercier di ko gën a encourager di ko ñaanal fi mu teg tànk mu bañ koo teggi gën a continuer ànd ak euh, frère am Macky Sall parce que moom Macky président danoo yàgg. bi président Macky sali nekk maire de Fatick. moom mi ngi woon ci biir conseil municipal bi. bi président Macky Sall joge ci moom rek le maire. le président de la république masa def passation de service ak maire ci moom rek passation de, euh, service entre un président de la république et un maire te mm-hmm. bi mu koy def maire pourtant il y avait des adjoints au maire mais président moo ko seetlu xam ko tànn ko teg ko fi te décevoir ko donc euh, ñun itam décevoir ñu ñu ngi koy gërëm man nag sama xarit la man doyuma ko seede man sama rakk la doyuma ko seede voilà am na solo hmm. mu mel ni kon defe naa kàddu yooyu am na solo kàddu yooyu seede la waaye ba tey du ñu sori parce que Makane a ngi taxaw te moom tamit mooy coordonnateur bi actuellement moo moo nekk sax si boppu Gaston Production makan looy wax si bés bi ak drapeau bi kontaan ci parce que vraiment sama tonton la Ibrahima doomam sama xarit la et relation yu mu am ak père Gaston du liggéey kase ñoom ay xarit lañ boobu yàgg na donc euh, su ñu jëlee décision bi jox ko ko c'est pour sargal ko surtout di ko félicité waale félicitation bi nag deux fois la parce que gañawaat na meeru Fatick ñu joxaat ko confiance boobu noonu donc c'est une très belle chose parce que lu tax ñu joxaat ko ko parce que def na fa liggéey boo xamante ni Euh, ñëpp teg nañ ci seen bët. ba pare mu jig ju jig Sénégal. ndax euh, bi ñu dalee wax waxu coupe ba léegi yàgg na. moom ci nguuram mu ñu am ko. di ci félicité waale au passage notre président Macky Sall. donc euh, drapeau bi daal mooy borom et puis on vous félicite encore. am na amateur yi loolu leen dig pour dimanche. dimanche moom rek nu mu nar a dikkee ci biir làmb yi moo nar a dàq que ñun lu ñu nar a def. Mm. donc euh, incha allah moom amateur yi moom dinañ ñëw ci bis boo xamante ni moom sa sera spécial. dina neex dinañ ñëw ci jàmm ñibbi si jàmm te dara du xam ndam rek incha allah. Mm-hmm. ñu fàttali ne ñu ngi fi nag ak suñu ay grand suñu ay magan ah, Abou Ndour ngee toog waaw. nga président Macky Sall à partir de demain ma nga Fatick. ba dimanche. ba dimanche. samedi ba lundi ah. mais dimanche bi nag ah. dañ nii le président Macky Sall nag nanu abal maire bi parce que yamay def bari na mais maire bi il faut mu jóge fa ci dimanche bi ñëw président lamb ji delluwaat ci guddi gi voilà am na solo yàlla na ko yàlla def defe naa ne presse écrite bi tamit ñu ngi fi Abou Ndour a ngi fi Pape tamit mu ngi fi ñoom ñëpp di ay journaliste monsieur le ministre ma bàyyi laa kàddu gi rek ñoom tamit ku ci am loo ci dugal jërëjëf maa ngi nuyu suñu grand le Don King de ren Gaston Mbengue di nuyu Makan notre fils aussi di nuyu waa Gaston Production yëpp et l'ensemble des journalistes sportifs mais plus particulièrement journalistes yi nekk ci làmb ji di am mbégte nag jot drapeau bi nga xam te ne Gaston moo ñu tànn bëgguñu ci sargal waaye xam naa ne daf ñu ko jox rek mais président lay sargal xam na xel ne ñun ay ministre lépp lu ñu am ki ñu dénk moo ñu ko jox moo tax ñu mën ko am donc làmb ji làmb président Macky Sall ñun ay ouvrier lañ dañ ñu naan schéma bi laa bëgg ñu ne ci donc la coupe d'Afrique eh, combat buy am il faut am ku jiitu yàlla jaarale nag ko ci ñun waaye gisuñ ci suñ bopp parce que dañu jàpp nekki am ndam kenn la muy le président Macky Sall kon làmb dimanche bi làmbam la làmb sportif yëpp la nag parce que ñëpp xam nañ relation le président Macky Sall de relation ministre Matar Ba ak l'ensemble des acteurs du sport euh, defe naa ne ñi bokk ci làmb ñoo fay gën a néew que yeneen discipline yi parce que toutes les disciplines se mobilisent pour venir accompagner cette journée la mu nekk journée boo xamante ne dafa dellu si fàttali li war a dox diggante nit ñi ak nit ñi mooy teranga te teranga fu mu dugg rek dara dootu fa ñàkk te jàmm rek a fay am Sénégal nag dafa soxla waxtu wi nit ñi nekk ci teranga di def loo xamante dañ koy def pour valoriser vertu yi nit ñi am nga xam ne mooy sous-tendre la paix sociale et la stabilité sociale du ay saaga du ay xaste mooy tax ñu war a tànn nit di ko fësal nit da ngay nekk ci waar woo xamante ne dafa intéressé ñëpp nekk pour sa réew bu ñu lay fësal ñu fësal la defe naa ne loolu bésu sport la mais bésu jàngat la yàlla def nag mu dal ci ñaari nit ñoo xam ne samay xarit lañu Eumeu Sène bu amee làmb gis nga tey jii bu doon drapeau chef de tey la te mu war a bëre dimanche mu war a dem Kolda bu ma gestoo gis ko boo ko teree sax du tere du kenn mënu ko tere ñëw Bombardier laa njëkk a xam ne Eumeu ñoom ñëpp suñuy xarit lañ suñuy xele lañ te kenn mosu cee yàq làmb donc déjà booy def lu baax yàlla dajale li baax yëpp mu ne parce que mënoon na dal ci peut-être loo mbër yoo xamante ne wala mu nekk combat boo xam ne CD yi ñuy def te muy dëgg ci ñun duñ ko mën def boobaa dañ koy noppee mais ñaari mbër yooyu ñëpp d'accord nañ ne ay mbër kaamil lañ mais mbër yuy defar lañ. Hmm. seen kàddu rafet na yàqu ñu làmb am nañ gannaaw donc li ñu ñaan rek mooy kuy bëre drapo ministre des sports nag di nga am fula di nga am fayda waaye nag ku daanu nangu. ku daanut feetu amul xel amul xuloo amul xeex. Hmm. parce que sport da ngay gagné wala ñu gagné la wala nga match nul te jàpp naa ne làmb ji du am match nul dinañu ko bëri ci fulla kii daan daan ñu continuer liggéey bi eh, di gërëm nag suñu doom makan ba nga nekkee ci bopp Gaston Production ba léegi ñu ngi lay suivre defe naa ne on a besoin de ces profils on a besoin de de jeunes ñoo xamante ne xam nañ réew mi nangu nañ ndigal yi ñu leen di jox parce que loolu bokk na ci relever la lutte man li may bañ rek mooy sénégalais bu jàpp ne làmb fola ay caaxaan la. moo tax intellectuel yu dugg ci pour jox signal ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ñu gëm suñu bopp xam ne lii suñu cosaan la dafa laaj mu attirer suñu attention la moo tax it ma am respect ci journaliste yi jàng nekk journalist ba pare tànn làmb parce que loolu mooy wane ne y' a pas de complexe te nit booy dox te amoo complexe loo yootu war nga cee jot li ci des nag mooy grand Gaston je vais sax xam naa ne ñu di ko wax mais depuis ma nekk fii amul lu xew ci làmb ji. ñu di ko doxal te nekkul ne ci njëlbeen waxtaan nañ ci mu jox ma xalaatam mais du ci yem da ciy investir di dox guddi di dox bëccëg pour jàmm am muy CNG bi muy bi fi Alioune nekkee muy tey te nag honneur la ci man ku mel ni Gaston yàlla baaxe ko ba muy nekk homme public moi je n'étais pas un public muy liggéey ñëpp jox ko cër nekk xaritu président la république mbegte la ci man mu tànn daf may tudde lu muy def moo tax kenn mënu laa fay parce que au delà de bés bi model nga ñëpp mun nañ la wax lu ne mais kenn du ne Gaston ñemewul dëgg te nag dëgg rek ay mujj nag nangoo wax dëgg nit mun naa ne waxtu wi mu wax li waru ko wax leneen la mais li mu wax du dëgg kenn du ko wax donc ku mel noonu nag bu dee sa kilifa nekk mag vraiment tudde la bés bu mel nii tudde nga ko sportif yëpp tudde nga ko siin nga ma dëkk tudde ko président Macky Sall tudde ko l'ensemble de la des populations de la commune de Fatick du département et de la région euh, wax nga fi léegi ne président dana fa nekk dëgg la dana fa nekk parce que day inaugurer le pont de Foundiougne mais ba leen di mu nga fa waaye dinañu trouver les créneaux pour ñëw parce que Euh, tey ndakaaru ñëpp mobilisé wu nañ li ma jaaxal kay mooy Makan nan lay def ba gérer loolu ak naka lay dugul boo moytu douzième gaynde bi mooy fees arène nationale <laughs> il faut ñu xool nan la ñuy waxtaanee ba waa Mbour yi bu ma invité maire ba ak adjointe bi ñu toog ak quelque rek xam naa ne Bombardier day négocier pour xool fan la gaay Eumeu Sène it day négocier pour xool fan la gaay mais li tax douzième gaynde nar a présent ak supporters yi c'est parce que dañ bëgg woon nit ñi làmb la supporter bëgg mu neex te amul par parparloo gu ëpp buy tax histoire am loolu lu ama am solo la euh, defe naa ne bés boobu bés bu màgg la bés bu ñuy fàttaliku la euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ko def ñu ciy waajal it retour match retour Sénégal euh, ñu bëgg làmb ji lépp nekk ci jaar ci yoon sedd mu nekk njiglaayu match boobu ñu ba ñu qualifié mën a dem na Qatar coupe du monde. incha allah loolu moom loolu li tax sax suñu interview bi xaw a tardé tuuti ci réunion de sécurité lañ nekkoon. parce que damay lancé un appel à travers seen médias yi làmb la waaye làmb moo ëff lépp. il faut ñu xam ne ku am lu bees di def lu bees sa équipe tollu niveau boo xam mosu fa toll il faut doxalin bi wàññeeku. mooy 10 heures dinañ tujji stade bi. waaye bu nit jaaxle wala mu métti la. que point di nekk foo xamante ne c'est à un kilomètre ou à cinq cent mètres du stade soo amul macaron surtout bi yi nga xam ne grand public la euh, foo dem ci monde bi fi ngay duggee ci stade bi ak fi ngay accéder ci infrastructure bi day gudd mooy tax bu yëngu-yëngu amee li amoon ay sànni muy dal bi ak yooyu du mën am parce que lii du match kese c'est de la diplomatie aussi dañuy recevoir suñuy gan te dañuy jongante mais jongante tekkiwul ñi nekk fi di nekk en danger ou en sécurité nit ñëpp ku fa ñëw danga war a nekk en sécurité ñibbi en sécurité loolu nag c'est des dispositions particulières boo xamante ne police BIP euh, gendarmerie y aura des milliers et des milliers d'hommes de tenue yu ñëw pour encadrer cette grande manifestation ñu ñaan nag mu doon fête parce que suba bu ñu gañee defe naa ne retour bi fête la war a mun a nekk su ko defee mu nekk ci Sénégal jërëjëf amiin